def lu ñu war a def si moom il aurait pu le dire plus wax na que ay ministre bu ko waxoon xëy na nit ñi duñu liggéey mais je suis désolé euh, bu defoon tam trente et troisième mandat ba gagné ko sax à la limite kon du muy def deux mille vingt neuf ñooñu ñu fay liggéey duñu euh, xanaa dañuy da ngay dangaat pour naa damay tant non donc euh, il fallait tout simplement et ça le reproche qu'on peut lui faire effectivement c'est que depuis deux mille dix neuf c'était son dernier mandat wax ko Sénégalais yi liggéey si mais il faut qu'on comprenne aussi quelque chose quoi moi je n'attends pas xaaruma si président de la république mu parfait parce que nit bu parfait moom euh, c'est difficile chaque fois dañ koy imposer nit ñi mais nit bu parfait man gisaguma ko n'est-ce pas nit laa wax donc je n'attends pas du président de la république qu'il soit parfait par contre j'attends du président de la république qu'il se corrige et qu'il corrige président da nga corriger sa bopp lu ngay def da ngay reconnaître nga corriger te ci côté boobu il a corrigé et donc c'est pour cela que j'apprécie affaire boobu ba ne bon léegi nag on peut rester waroon na ko teel a wax waroon mais loolu passé nañ ko léegi nañ xool ñu ngi am beneen rendez-vous boo xamante ni si lañ jëm léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo war a xam lu ñuy def parce que pour la première fois duñu folli pour la première fois dañuy fal te loolu dafa nekk lu bees te loolu dafa laaj nga xam nit ki nga xam lu mu yor nga xam nga xam lu bëri si moom mën-mënam ak lépp mais loolu beneen rendez-vous mais pour ce qui est du président je retiens que moi je n'attends pas qu'il soit parfait moi je retiens qu'il se corrige et qu'il corrige et de ce point de vue je suis satisfait Euh, Charles tout yaa ngi koy wax ci li nga xam ne moom mooy wàllum euh, pression ñenn ñi nag jàpp ne euh, pression peut-être askan wi moo waral mu daal di renoncer waaye itam at li nga xam ne daal dinañu tudd mbiru CPI moo tax mu daal di renoncer li nga xam ne mooy candidature. non ça ça ça vraiment c'est il faut il faut que les gens arrêtent moi j'ai une haute estime de mon pays. et de mon président même si je suis pas d'accord avec lui man benn réew Afrique. maanaam Afrique ba mu jeex tàkk pour vous dire la vérité hier euh, Kagame de war a dem fenn il est passé à Dakar pour voir ça veut dire beaucoup de choses boo gisee la réaction de de Issoufou nga gis la réaction de Bazoum des réactions un peu partout Guterres de tout ça dans le monde c'est vrai que les gens avaient une certaine peur pour la le Sénégal et la tension mais ça n'a rien à voir avec ces pays ces pays kan moo la fay yóbbu ces pays si boppam moo la fay yóbbu le procureur ces pays moo la fa mun a yóbbu beneen affaire boo xamante ne moo la fa mën a yóbbu mooy euh, les euh, le le système des organisations des nations ñoom ñoo mën a euh, état ñoo la fa mun mais benn personnel benn personne rek benn personne ñëw nii taxaw nii avocat wala keneen ñëw nii rek ne damay porte plainte dama koy yóbbu ces pays sénégalais yi tey quand dafa am loo xamante ne waxtaane ko waxtaane ko mooy wax affaire u cuune maintenant nga ñëw nga ne man damay gagner élection jël Macky Sall yóbbu ko Euh, CPI kooku day fekk nga nekk état nga représenté état ne da nga koy yóbbu CPI nga yóbbu ko CPI mais pas c'est pas parce que da nga koy yóbbu CPI que c'est établi c'est pas parce que tu amènes quelqu'un au tribunal que c'est établi au tribunal dañuy àtte et louer le génocide mais quand euh, et de ce point de vue-là attention hein attention attention les gens disent tout et n'importe quoi Euh, euh, le président de la république a-t-il euh, dugg na si benn éradiquer benn benn benn ethnie dugg na si benn kii def ay crimes de guerre def na am def na ay crimes ak yu demee noonu attention attention et ce pays dañ ko ce pays a été mis sur place là ce pays pour quelque chose de très précis donc tey il faut même qu'on évite d'alimenter un certain nombre de choses qui montrent à la limite qu'on n'a même pas le niveau quoi parce que dafa am loo xam ne boo koy commencé wax mooy que amoo niveau parce que yenn yi nag boo ko xamul da wax ku du si yomb non je pense que euh, la pression euh, des Sénégalais les Sénégalais il faut que il faut que nit ñi def la différence entre le Sénégalais ak ay Sénégalais bokkut Sénégalais yi bu ñu sonnee si Abdou Diouf dañu dem voter ne ko jeexal nga 42 pour cent des Sénégalais. donc maanaam jege na xaaju sénégalais population ñoo ñoo ànd ak Abdou Diouf donc lu ñuy wax yëpp Abdou Diouf bu muy ñàkk deux mille deux mille près de la moitié des sénégalais ñu ngi ak ñoom am ñu ngi ak moom yeneen sénégalais yi ñoo mottali ëpp leen ne ñun cinquante et quelques yi ñun ànd ak ñeneen lañu ànd. mais premier tour bu doon passé rek ñu dee euh, le président de la république est élu premier tour mais Abdou Diouf day jàll Abdoulaye Wade day jàll mais ñun ñoo il faut que les gens fassent attention les Sénégalais on peut pas dire ils sont euh, ni une fille ni déedéet c'est un ensemble Si on passait l'élection présidentielle dès le premier tour, Abdou Diouf aurait en 2000 encore, Abdoulaye Wade aurait été président en 2012. Euh, non, euh, Abdou Diouf serait passé en 2000 et Abdoulaye et quelques pourcents devant Macky Sall qui en avait 25, mais on désigne le président au deuxième tour en cas de quand le suffrage plus pas euh, quand la majoritaire n'est pas Donc c'est notre vote. les Sénégalais on a vu les Sénégalais sortir contre Macky Sall non il faut que les gens arrêtent on a vu des gens sortir on a vu des manifestations on a vu des choses se faire mais la preuve mais Sénégalais bu ñu gënoon noonu Macky Sall jeexal nga mais yow nga foog ne euh, du jeex foofu quand le 23 juin les Sénégalais sont sortis pour dire au président Abdoulaye Wade ñun nanguwuñu ce projet ay vice-présidence euh, monarchie dévolution de la xawma monarchisation ay loolu yëpp ñun ànduñu si élection au quart votant mais Abdoulaye Abdoulaye Wade bu bu jàlloon affaire boobu 2011 mais 2012 il aurait été président parce qu'il parlait de quart bloc mais ça veut dire quoi avec 35 pour cent il restait qu'est-ce que les Sénégalais boobu tous les Sénégalais et partout Sénégal mais fii ça ne s'est pas passé il faut faire attention il y a des Sénégalais Et assez souvent, abus de langage, pas, soit parce qu'on ne maîtrise pas très bien ce qu'on dit, ou alors c'est parce que dañ ko tàmm wax c'est un abus de langage et qu'on le dit, mais ce sont des erreurs, voire même des fautes dans notre truc. Il y a eu une pression effectivement sur le président de la République, ça il faut le reconnaître. Une forte pression de l'opposition juste dans le dans le dialogue national ak ñoo xamante ne demuñu ci dialogue national bi sénégalais yi ngi doon xaar. qu'il ne m'ait prononcé ou aucun sondage, en tout cas à ma connaissance, n'a été fait pour savoir est-ce que la majorité de Sénégalais ou pas. Mais Sénégalais, yaa ngi doon xaar mais il faut pas oublier aussi la suite la communauté internationale boo xamante ne si yenn discours yi diplomatie la c'est vrai que mënuñu wax yi affaire yi d'une certaine manière mais boo amee connaissance du discours mat euh, diplomatique nga mën a liir entre les lignes da ngay comprendre que nii ñi ñu ngi doon wax président euh, Macky Sall faaw nga abale. faaw nga bañ a présenté wu si biir loolu mu am fu ñu accompagner l'état du Sénégal si ay projet yu am maanaa et loolu yëpp si biir dafa am lu ñuy wax si kaw ak lu ñuy wax si suuf te lu ñuy wax si suuf duñ ko wax si presse donc il y a eu une pression il faut le reconnaître mais dire que les Sénégalais sont sortis pour que le président de la République parte si les Sénégalais l'avaient fait le président l'aurait dit beaucoup plus tôt mais c'est ça la vérité ça veut dire on ne peut pas inventer ce qui Euh, ba tey rek ñu desandi euh, ci li nga xam ne rek moom mooy élection présidentielle 2024 bi ñu jëm euh, tey jii nii ban profil nga jàpp ne moom lañu mën a teg ci benn bokk yaakaar pour élection yi. si benn bokk yaakaar c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se disent bon tout le monde pense parle de Amadou Ba hein. ça c'est clair que Amadou Amadou Ba premier ministre euh, d'ailleurs ce serait une. une sorte de revanche de l'histoire pour lui parce que euh, c'est mën nañu wax c'est le mal aimé mais c'est l'homme qui fédère aussi euh, Amadou Ba et et am na ay il pèse et Amadou Ba est respecté aussi de l'opposition même l'opposition radicale un certain discours plus ou moins en tout cas waa respecter il faut vraiment que du Ba wax benn affaire pour que ñu dal ko euh, bu ñu demee gannaaw loolu Amadou Ba quand même euh, amul sénégalais bu ko xamul et loolu il peut avoir une assise euh, nationale mais léegi nag il faut construire.